الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بوكي جلدي بوكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجي لين دي نويو جلدي ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyu taalibe ak mbokkum taalibe di ñaanal Cheikh Sidi Muxtaar sunu borom yàggal ko fi dolli ko kàttan ba yéeneem ci liggéeyal Cheikhul yi mu defe ko ni mu ko bëggee di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp ak jullit yëpp ak taalibe di siyaare bu baax Serigne Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam dëgëral taxawaayam mottali ay naalam ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall di siyaare kuréel gi nga xam ne ñoo takku ngir saytu ak gëstu ak toppatoo jaar jari a Cheikh ibrahim Fall muy jesbu Murid noo ngi di ziaré bu baax di tek nuyo bi ak ziar bi ci bok yi ko jité ak ñi ci bok ñep ngi di ziaré ci gën gamati nu ziar gën rafeti nu ziar di ziaré bu baax Cheikhul Khadim gi fi nek bu ñu waxee Serigne Mahmoudan mom Cheikh Mahmoudul Mourtada mom Cheikhul Khadim dana mën a matalaale ci kilifa yi fi nekk yépp kon noo koy ziyaare bu baax di jaarale ci moom ziyaare kilifa yu baax yi fi nekk di am mbégte bu baax ak cawarte ci liggéey bu am solo bi ndax jamono toll na fi jamono it laaj na ko moo di gëstuwaat dundin ak jaar jaaro ku tedd bi Cheikhul dafay mel ni en général bu ñu tuusee kenn ci yoon wi day mel ni day metti benn parti bi nga xam ne ñoom rek la tuusee fekk na ñu ngi soboote garab gi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa jëmbat bu waxé dara ci Cheikh Ibrahima Fall wala Cheikh Ibrahima Fati wala sëñ Mandoumbe wala kenn fay tegtale rek né defariinu serigne bi dañuy jubloo xeet wala ñu di ci am ay gis-gis moo luñ ci tuddu rek ku bokku ci yoon yi lool daf la wara metti bu ko defé xam ngeen né ñu baax ñu fi nekkon ñep serigne bi ci leer lu leer nañ ñi ci la samp mbiram dafa wax ne sama yoon wi génnul alquran ak sunna ak li borom xam-xam yi dajale banaytu taati bi ittibaai bi dikri wa sunnati wal ijmaa Serigne Touba mbiram mepp dara génn ci alquran mbiram mepp dara génn ci hadis yonente bi Sallallahu alayhi wa sallam dara génn ci li nga xam ne borom xam-xam yépp maase la nañ ba tënku ja saxal ko loola rek mooy doxinu Cheikhul Xadim luy nuru réer wala léeralaate yàllaa ko ko fegal alaya man allahu dul jalal bi azmatihi min dararil idlal ginnaaw moom du du réerul te du réeral kenn lu bokk ci biiram rek umpule moo cay dal nit waaye lu mat la lu tege la ci yoon wi yàlla bëgg tey jii nag ñu jël ci kon kenn ca ñu baaxam ñooñee muy maam Cheikh Ibrahima Fall di ko dakkantale baabul muridi doy na rek ci ñu war a mën a nangu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam Cheikhul Xadim digganteem ak yonent bi salaatu wasalaam dem na ci junniy at ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk wala at ak ñetti téeméer mu mel ni lu tax ay xuddaam li ñu doon bari bari ñii dëkkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ginnaaw yonent bi ci at yu gën a jege taxuloon ñu tudde leen xaadimu rasul seigne touba yi ñëw rek programme boppam ne may khadim rasul ndax bu ko tuddee woon boppam day melni ni ñepp ñëpp ñoo ci yam way yalla boromam moko nat ci andar ji ni nattee ki doon rasul mu fess ko del mu ne ko yaay khadim rasul motax mu waxal bopam ne yalla ma tuddé ci lu dox may khadim rasul ta diru jamono di am liggey bima ko liggey mbégte lay do sammayta ni qat bi abdikal khadim yaa man yaquudu li busharatin tudd yàllaa ko seereel it ne ko yaay xaadimu rasul mu ne shahida lil baaqi bi anniya alxadim wa xidmati lil muntaqa bishun yabi waxal boppam it ne doon gi ma doon xaadimu rasul ak nii ma liggéeyal yonente bi salaa sallam foo leen fi dégg ko dangose ne dana ko defee ni ma ko defee dajji naa njottam sànni ci àll ba di xam le ne menn man képp maa ko defee ni ko yàlla bëgg man zanna annahu yakunu abada يرضيه بالذي كخدمتي بدا نفيت ظنه باني الخديم بما وراء عن مثله كل خير بابل لمي لمي تكتل موي داي وني يونتي صلى الله عليه وسلم سيرن بي رك موكو لغيال بوبا لغيي بما دال نكو ادنا بيب مو تامل سي شرقا ومغربا فوني في خادم رسول خلو مكن دو دون دا كن بايو خلات كن دو سيرن توبا loolu itam jëf ju moo ko may ak liggéey boo xam daf ko liggéeyal yàlla bu ñu ñëwee it ci liggéey bi ñu koy liggéeyal moom sëñ Tuubaa sosut waaye dafa sof lu tax dafa wax ne bi ma ñëwee dama fekk yoonu gaay yàlla yi farga yi nit ñi jëmatuñ ci yàlla nañ ca war a jëme di foye alquran di sàggane lislaam ku lekk boroom xam-xam ku nekk bari na looy nangoo jëfandikoo di ko lekk ci ay gar wala ci ay moyaal walla ci di atteel ay buur ci loo xam ne nekkul lu yàlla bëgg mu ñëw nag woo nit ñi jëme leen ci lan ci a taqwa muy ragal yàlla goo xam ne gu mat sëkk la bi mu ñëwee it xam ngeen ne dañuy wax ne mu tasawuf nii dañuy wax ne li tax yëf yi am tuuti benn sew sew bu mat di jàngat ñi fi jiitoon yëpp ak turuxu suufiya yëpp kenn ku nekk saw yoon da nga koo da nga koo tudde sa bopp wala sa ñoom tuddal ko Cheikh Amadou Tidiane Cherif Atijaniya Cheikh Abdou Khadir Jeylani Alxaadiriya aw Chazali aw Rafaai aw Baktashi moo dem turuxu suufiya yëpp dañu jël seen yoon yi tudde ko seen bokk الإيران رسالة خلا كيف بكون نم يالله بقدر جاتي يوم يالله واو يالله سرير تباوت بمنو مين يم تبغ ديرم لين نبتي ما تجف لك أم دار الشريعة أحقيقة سن تبا دين كبر يوم تدين وخمنه كل مسكور دين ما نقول ما لا من دو نيم دار نوتيال من عندكم نيم تبغون أي شرفات ينك برامي خم خم جلو من تكشيخ خديم دم من بن نمو لارو نمو نم بودة يتبه ولا جامو يالله ولا رجل يالله كم نمو كنو سرين توا فهو ناري جسم بط نمو جدي سعر الله فاربون وليس له نظير في سخرة وكسب تقى وعداد في الرحمن كل يوم دو جار سلو خم نلفي جوي وعدلي يالله بند من هو تيوان الميت شلون لك هو تيوان dana sama yitte mooy jaamu yàlla jàng alxuraan topp sunna su yonent bi farlu ci yéwénal mbiri jaam ñi walis may xool seeni i ban ba daan na nag maa ngi woon nag képp ko xam ne ndax yàllaa ko woote la xam nga sëriñ bi daana wax ne woote yomb na waaye bi ismillahi ja moo jafe maanaam am ndigalul yàlla ci woote sëriñ bi nag moo wax ne yàllaa na digal ne naa wax nit ñi ne leen maay wéeruwaay maay laqwaay bi ku bëgg jàmmi àdduna ak alaaxira na ñëw léegi nag danoo sa loolu suñ tubaab déclaration bi rek xam nga ne yonent bi salaahu salaam bari na tey ñu xam yonent bi ñan ñoo leen xamal yonent bi mooy ñi bind ginnaaw yonent bi te dëkk ak moom moo xam muy Kaabu moo xam muy Xazaan moo xam muy Busayr ñooñu tey siira bi yonent bi salaahu salaam nabi yu ndummi la mënuloo teg sa loxo ci benn téere bu yonent bi bind xadis yi mu wax ñeneen ñoo ko bind kon moom jàngul day bind waaye nag ku jàng ku nekk ci biir li muy wax ci ngay nekk ci biirum njàng mit ci ngay roote ndax yàlla ko xamal lépp kon ñi nekkoon ci ginnaaw yonente bi salaa salaam ñoo feeñal li yonente bi ëmbi ak li yonente bi bëggoon Cheikh Bamba joué na ci loo xam ne lim jàngale ci yonente bi salaa salaam xam le ne kii mooy kenn moom la yàlla def mu mel nii seet qualité qualité malaamex yi gën a mag yëpp mu fotoon ñu yonente bi identifié ñu ko ba tey bu boo dee jàng nit ñi Serigne Touba ci yonente bi bu daanee rek kàddoom day mel ni yaa ngi jàkkaarloo moom bu la waxee ci ay axlaaqam muy ay jikkoom da ngay xam ne doy na rek ci muskil li shaytin bashirun li baakin yonent bi daawul tàngam lu kenn ku jàmbat loo wax mu dégg ko ku jooy ba ñëw fu ma mu bég loolu loolu ban jikko ma ko gën jenn jikko ju ko gën a gën a mat wala jenn jikko ju ko gën a rafet am Sëñ Tuubaa wax ne sufiya lahu waaxirun wa batat fa habbada al mawla bihi kama amal yonent bi biiram dafa rafet bitteem rafet maanaam ferkal la amul melaw biir mu mel nii wee di mel ne ni biiram mel nii la bitteem mel jaamoon na yàlla it na ko yàlla bëgg sëñ Tuubaa ba mu ñëwee tam tam ci fekk ne ginnaaw bi mu suppiye waahiru la mu moom batan daal di wax ne nag zinatu zahiri wa batini maa kaw ni xaadiman lahu mutabaa lii ngeen di gis ci man mu taaru ci biir ak ci biti lépp li ma ko mo mooy nekk di ma nekk xaadim rasul yonent bi mu doon joxañ di ko wane nga xam ne boo jàngee ma wax yi bu naafeq بيجي كده كيب سنجوبا يرن تبلي تيوان تطلع تطلع تطلع داخل مونيو داخل بشيم له وشين في سسراي داخل نجيب وساق الخريب وساق ذاك ذاك تبيني وين وين مكوي أغني لا خلنا بني وقت بنن وشنو بني جفلي لا خلنا ده ولا ترى يميجل يميجل لا خلنا بني بني كم خدمة ده نبي يوم رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلم بدل من بولم téere yi nga gis mu jallada bi yëpp ñu di ko fekkee te tafsir tafasir yi génnul biir nabiyun rasulun xayru abdin wa sayidin xalilun habibun mislahu laysa yuxlam mën nañ nag di ko di ko taxliixaataka ajaka guddalaka saraa waaye génn lool Cheikh Baye Faat bi bu ñëwee it ginnaaw suñ tubaab dañuy joxe naan kee mooy kii la gaaka nangam zaaka nangam zaaka nangam léegi suñ tubaab dañuy jàngal yonente bi ñëw ba noppi nag moom ëmb yi ñu doon te kenn doo xam ku mu wala day wëlbatiku naan maay kii wala lii laa mel moom li muy wax ne mooy darajati kaw ni abdallahi xadima abdi ibn abdallah man daal maay koog jaamub yàlla laa di liggéey rasul la waaye dañ ci biir mbir mu yéeme moo xam ne dañ ko war a xam ne ñëpp yëg la ko Cheikh Ibrahima Fall dafa ñëw ngir leeral loolu sëñ Tuubaa moo wax ni ni ma meloon man bi Ibrahima Fall ñëwagut dama mel ni njàpp su nekk ci gént ñamu sëñ aadama Gueye di burum lu di burum lu ba fekk ma tànn ca naan ba muy siggi seen sëñ ma baabu daan ne ma baabu kaay njaq a ngi si su sedd te neex a naan muy burum lu fam jaar di burum lu fi sëñ Adama jaar baat si fa tàng naan ba muy siggi seen Cheikh Ibra daal ne Ibrahima kaay as njaq a ngi su sedd su neex Cheikh Ibra Fall ba mu ñëwee lam leen dëkk wax wutal leen ma sémmiñ ma àlli ma ma àll bi ngir njaq su sedd su mel nii fu mu nekk des ko war àlli ba noppi loolu mooy woote bi àll ko dagg garab yi lépp dana ba ba dañ ko daggee ba ba njaq li ne cumm dafa waaye tollu seen ko mu ne njaq lii nag yéen ñu ci kenn di ko naan yow kenn danga naan ñëw leen as njaq ngi sos ku ko naan mucc dara teg laa nga war a woote lii di sëñ Tuubaa loolu mu jàngale nag li mu jàngale mooy war mu woon sëñ léegi yàlla moo wax ne laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli mun tàggale benn yonente lu tax sëñ Tuubaa egg ci ne taratu mag aussi wal muxtaari sayidina léegi moom ku dul yonente bi duutu mën a tan sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall nag ñëw léegi am ci nag pointif boo xam ne xoolal bayitu sëñ Moussa Ka yi daal dëpp waxi sëñ Tuubaa ji yaqulu lisaanul xaali lii kun xadiima man xanaata anil akdaari billahi saaraan boo ko jëlee mas nay xibaar ak njir buloo bay wax ne yàlla mi ko moom moo ne ko bamba moo la moom raasi sëñ Tuubaa nee na yàllaa ne ma dooleel liggéeykatu kii Cheikh Ibrahima Fall nee na yàllaa ne ma kii la moom ah léegi nag léegi léegi lu bëgg xew lisaan bu xaal moo ne ma kun xat yi ma man liggéeykatu kii Cheikh Ibrahima Fall ne man yàllaa ma moom yàllaa ne ma yow sëñ Tuubaa la moom bu ma ñëwee xam ngeen ne bu fekkee ne ak li li ñuy war a posé toujours problème ak di ca xalaat moo di sëñ Tuubaa bi mu ne roosu la fa xudu wa maa nahaa anhu fantahu léegi mën nga génn diggante dafa bay dafay diggante bàyyi tere mooy mooy mooy mooy murit léegi nag joxe addi yi nag doy na ak jaam yàlla mooy lan moo di jaam yàlla mooy xol bu nangu yow wala yafau maalun wala banuun illaa man ata llaah bi qalbin saliim yàlla jëkk a dawoo seen doo bari bari bàkkaar doo mën a woor war soxul baaxu man dama ko nangu xol bu sellul borom du raamal mbokkum jaaram xol bu sellul borom du def buñ ko wooyee muur xol bu sellul du toog ci suuf kee toog ci kaw xol bu sellul du def du bëgg dara du am daraja du soli yéene yow lay liggéeyal boo ko gëree mi mu jooy loo bëgg mu am ko xum kaw ay say doom gëral ko weer xal bu sell mooy loolu ndax ñoom dañoo réer nag maa farata fi kitaab yi shay wala ki ñaan lay bëgg a jàpp nit ñi ba duñ mën a dégg alquran boo seetee kete bu la def de tawil ci rek mën nañu def ay séminaire yi dul jeex loo andi teg keneen andi teg te ci biir alquran dañu nekk fu ñu ci génn yàlla waxal baytan tënkuwul ci looy jëfee ndigal bàyyi tere loolu mooy seen faat jëfee ndigal bàyyi tere yàlla ko jëkk di lu yonente bi indi def leen lu mu tere bàyyi leen seen tubaab luy digle lu digle ci magana lu mu tere rek yàlla ko tere kon loolu la jëkk jàpp ci point boobu Cheikh Ibrahima Fall bu ñuy ñëw ci Sëriñ Tuubaa yi bari na ay kàngam bari na borom yi xam-xam waxtaan na ci kilifa barki dem mu ne xam-xam suñ mu dem xam-xamu sëñ Mouhamadou Lamine jub a dégeen xam-xam yii la Cheikh Ibrahima Fall amee woon nga xam ne biir xam dafa jël xam-xam bi dëxañ ko te bari na ci biir mag ñi xam ne xam-xam biñ am biñ ñëwee ci Sëriñ Tuubaa nangootuñoo jëfe ci xam-xam am na mag ñoo xam ne dañoo gas seeni téere ba mu xóot nu suul wax ne buñ teeroon a gis Sëriñ Tuubaa duñ jàng aw araf kon xam-xam boobu lan mooy xam-xam mooy wasila waaye bu raaya nit ki bëgg amee oto bu ko yóbbu bu yeggee ndar du wàcc ndax léegi ci oto ba la naan xam-xam moo lay teete Cheikh Ibrahima Fall xam-xam mooy précepteur bi comme nit la sëñ Tuubaa ba mu gis ko boobu loolu xam-xam du ko gis ndax sëñ Tuubaa du bët bu neex gis ko nopp bu neex dégg ko comme neex nga mën a trouvé kan mooy Cheikhul Khadim kon léegi ki yàlla indi te sëñ Tuubaa moo ne baada li ahlul kashf wa shahaada maanaam ñaamul texe te yàlla dafa leen ay couvert nga xam ne lépp ubbiku na xam nañ ci ma doon leer nag kenn la leeral baana li kulli mën la fu wilaaya gis nga sëñ Tuubaa bu ko contexte doo wël yi texewoo xamoo dara lu tëdd la dong moo waxal loolu baana la fu wilaaya ku amul wilaaya ku nekk xam na ki ma doon baana li kulli mën la fu maaxuul ku amul xel ku nekk xam na ki ma doon baana li ahlil kës shaara ku leen la ubbil kiiraay yi ba amatoo protest bu la baare xam nga ki ma doon ku texe xam na ki ma doon ku texewul doo wël yi amoo texe amoon boo leggin sëñ Tuubaa boo boo leggin ay sëñ Tuubaa doyul moom dox dara doyul ko texewul dara te moo ko waxal kon ki am yii nag mooy xam kan mooy sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall di wër Sëriñ Tuubaa ci àdduna bi dàqal naa fi la ñëpp la daal naa fi la kaamil te gisagul Cheikhul Xadim kër Murtada Touré ñetti at tërbiye na ko yoo xam ne kaamil alxuraan lay naafila day taxaw benn tànk bi جانغ خاد بيجي كبي واتي بين تانك بي تخا ولا بيجي جانغ خاد بيجي فجر جرب تيم برام دارم كجامي يلا يقول لي يب نسوبلي نلين دار بلو سوت دلوا منا مايك كي مي بكو نوكي مسيا ما له فكر له يا يلي دين آمن واتق الله واتقوا إليه المشيلة وجاهدوا في سبيله لكن أمتي المفسر ميوهنه al ahmadu salihat mooy al wasila léegi al ahmadu salihat nan la nit di mën a jëfe ji jot da ngay nekk ci di taxaw wala ngay kar nit ñi da ngay ci nit kooku yàlla yàlla la sa jëf nangu ba tey dañuy def benn seen su foofu tey boo yegg ci abu abu talib al abu na ki bëgg a yëgg ci ñoom talu gaar gi te amul sëriñ noonu ñu ko bëgg a jàpp nan la mën a mel ndax loolu dana yomb mooy bëgg a toog ci taatu garab gi rek jékki-jékki yegg ca ñobatal la te am yëg te bi ndax da nga yéeg ci garab bi mooy ki bëgg a yegg te doo am sëriñ fa daayee yoon la Cheikh Ibrahima Fall egg ba noppi nag di wër Sëriñ Tuba ngir dimbale nit ñi bi ma ñëwee ci moom it li ngay a gis fekk na fi mbooloo bu doon xam-xam sëñ Mbàkke bu so doy na Cheikh Ibrahima Fall bu doon Daaru Muxti doy na sëñ Daaru Asan Njaay doy na sëñ Daam Abdourahmane Lo doy na ñii ñëpp doyoon nañ ci encadrement boo xam ne bu dee xam-xam kenn mënu leen ca dañu fanaani loosi la jàng alxuraan duñ jëw duñ wor duñ werante di yàlla yi neen ndax man seen cee nettali kenn koo xam ne dañ lay wax ne la am na diggante buñ jàkkaarloo Serigne Touba ñuy xas-xaslante ak a waxtaan ci diggante njëbbuloom ak bañ a jëbbuloom amul ci kenn da ngay dégg ñu jiw jébbalu sëñ bi lii la ko sëñ bi wax ba mu ñëwee bi nii la meloon waaye seetal ki ñëw ci nit nga xam ne bi suñu aadama gi ñëwee ànd ak Cheikh Ibrahima Fall mu ne ko ndongo li amoo koo ànd mu ko mi ngi mu ne ko nekku na ñëw Cheikh Ibrahima Fall premier jour boobu mu gis Serigne Touba la gi nekk ci moom nuuraan yi gi nga xam ko paralysé ki ñu seet bokkul gis waaye Serigne Touba it xamal na boppam ne kii mooy ñam daan gis ndax Serigne Touba moom du nit ba dara ñëw fi moom mu doo koo xam en leme kaana qabla la wax ba dara amagul la ma yàlla xamal lépp kooku kon dara du ñëw ci wetam rek naan ko may diw may diw may diw nit ñi daan ñëw mu yónnee na jëli ko gàttu ji leen waaye xoolal bi yi ëllëg waxu ko naa fal bu doon fal Cheikh Ibra Fall bu doon bu doon pouvoir la bëgg bi ñu ñëw ci Sëñ Tuubaa noonu lay tànk yu dul fees la te ku jàng histoire am xam na ne kon bu doon bëgg suuf wala xëccoo ko wala doole buur ak dammee na ko ñoom kon Cheikh Ibra Fall tey ba waaye déedéet egg ci yàlla sama it egg ci من ناتسارو من نادر كم كلك من نادر ليه بتيلا أنا يقول لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع الصادقين بقول ذلك أن كن مع الله فإن لم تكن مع الله مع من مع الله يوصلك إلى الله إن كنت معه نك لك يلا بومن تنك لك يلا نك كلك يلا دنا لا يجعل يلا نم نم نم هو شيء من فار نيم نسنج بارما بدو إد يلا سنجش من فار جيب جيب جيب جيب أقوال ittaqullah wa kunu maa sadiqin damaa jël ndigal rek da nga doon wax ba ma jël ndigal suñu daax bi moo joxe yi yéen seen seen xaal yi teew ak sonn ak yëpp balaa gànnaaw jaar si ñu neexal gànnaaw seen ngir jëmbi seen loolu la sëñ bi joxe ndigal nan ko neexal ba xool seen buy mu waxtaan ak seen xol faal ba suñu xool seen buy nan ko laam bu mu ñëw lu waay yoon na ko indi ngir indi seexe jokkalante ko mu ñëw yéen ñëpp allo allo jokkalante ko mu ñëw nan ñun di jëm seexe ba xam gaana nag da ngay doon tàmbali dara na ñëw ku dégg rajo rek laa mën na ñëw. waaw ndox ñett waaw sëñ bi. na kii di bari. na kii di bari waaw. na kii di bari na kii di bari. waxtaan yi. bisimilah waaw. bu gàmm. pour yore lii. incha allah waxal ak yow waay. kon maa ngi woon ci baatu egg ci yàlla alxuraan wax ne yaa ay ladina amanu ittaqullaha wa kunu maa sadiqin kon nem nem nem na nga ak moom moo tax Cheikh Ibrahima Fall bi mu ñëwee li mu jëkk a wax sëñ Tuubaa waxu ko àdduna waxu ko alal waxu ko lenn dana ko egg ci yàlla rek ndax egg ci yàlla mooy lépp sëñ Tuubaa na ko li yàlla waxoon yonente bi dafa anna hawa siraati mustaqiman fattabi' egg ci yàlla de wenn yoon képp la mooy nii siraatul mustaqim julli woor natt asak aj makka yooyu rek mooy yoon yi mën a jaaral noonu bi ki la ki nga ñëw ne ko dama bëgg ci yàlla mu wax condition yi yin mën a jaar ba yegg yàlla bu doon ne loolu rek ngay sa yitte wala loolu rek ci ngeen di jaar yéen ñaar ndax doona kon baax na dem di jullee ko wala desal ma waaye dana ko yii lu ci nekk def naa ko waaye taxu moo la yegg ci yàlla man nag damaa topp tànk bu yàlla ba mu sof sa kër booba te boo ma wanee bu fekkee ne li may wut mënuñu ko am doo doo li may seet boo ma tegtalee fi yàlla jaar ba génn da ma rek kon yàlla rek lay li ñuy wax li ñu wax li ñuy wax li ñuy wax euh, li ñuy wax ñettamal ndax sëriñ bi bari na lu mu daan jëf loo xam ne léegi-léegi mu jëf ko bu fekkee ne coobareewu rek ci boppam wala lu nit maslaan nangam la du ko def waaye léegi-léegi mu sës foo xam ne nag faaw mu jóg ba ba loolu amee mu ne ko man yegg ci yàlla rek mooy sama mu xam pas-pasam xam ne kii fi mu toll ak li muy ndax li mu yor attan na ko ndax li li li Cheikh Fall yor attan na yan bii mu bëgg ci la ko sëñ bi nett nii sëñ biit sëriñ Bachir Mbacke moo bind sëriñ Bachir Mbacke ne Tuubaa ko jur bu dee xam-xam judoo sëñ Bachir bu dee baax bàyyi ma gën sa bàyyi ki la gën bàyyi gën la ci boppam ëpp la xam-xam gën laa ragal ko dandal léegi lu am ni nag sëñ sëñ wax ne Cheikh Ibrahima Fall nekk li nañ yëbbalam bi sëñ Touba lu ci andi ñoom ñaar di xaatamante ba ci bi may ñëw jamono moo wi ak weer wi ak suuf si mu wóor ne yonente bi daana ci dox danaa ci am li mu ma nga tàmbali faalam yaa Ibrahima Fall anni ana lahu ajibin asari sallallahu alayhi wa sallam ila mun zurati nuju waaye nag bu ñu ko waxee noonu ki ki may wër bu ma ko fekkutoon ci kaw suuf te fekk fi bàmmeelam danaa ca jaamu yàlla liggéey bu am ngërëma ah léegi xoolal xool xoolal diggante xawaar bi ndox Serigne Touba ak Cheikh Ibra Fall kii wax lii kii wax ko lii mën a waxu góor njëlbeen nga yàlla yàlla rek lay ni adduna jii de mënoo fee am lu toll ni mbaar mu ne ko adduna jii de bëgguma fi lu toll ni karaw kon Cheikh Ibra Fall adduna yi tax xujub bu doon am ñëw wala daraje wala bu du doxe moom Serigne Bachir laaj na ko na ko kon mbooloo barke bi fu fu mu jógee mu ne ko ba ma sukkee ci sa bàyyi di jébbalu faxasi ci suuf ñëwoon samay wóob mooy mbooloo mi waaye sama cër ëllëg la kon liggéeyal Serigne Touba moom barkeel yi loo ca laal am na la ci fekk léegi nag bi li amee xaata bante nag sëriñ bi na ko mu ne ko yoonu tër bi xam ngeen ne da tàmbali ci Abdul Xaadir Jilaani te fanweeri at dañ ko daan tër bi yëpp doo gis mu ne ko yoonu tërbiya nag laa bëgg a sóobu kon xam na ne li muy wut tërbiya koy maye ñi jàng nañ xool lan mooy manzilatu tërbiya ban wàccuwaay laa fi diin léegi lu tax lan nga cay xool mooy lislaam bu sëtli ko ñetti xaaj am ruux am jism am libaas libaas bi mooy al ixsaan te mooy ak tasawuf kenn mënul am lixsaan baa nga am tasawuf bi duuni tërbiya moo tax li sëñ Moussa ne ngirum tërbiya ngi xew ci saw jant yaa ko def تجد حاجة يا تبنيك كنون مسك في كوبا كذي بني عندك بام بخمنا لو خيو نقوم بجس تلا جد يم ناسير كوبا جنب بلا رجل إمام كي كي نبدا نور لو بس لكن بعد كما رسول الله ما يمد بدور شو ما تفسي في الكونين من الجوف سير كوبا جنب نانا يا روتا دنيا ما كتجدها أنت المربي بما رب أمين به حرفا بحرف ما في جيل شرورة كونسنت بعدين يوم فكرينا نجيب دنيا مدايا كده ليه نجيب دنيا منا دنيا mu ne ko fanweeri at mu ne ko bàyyi na fukki at ak juróom fukki at ak juróom la Cheikh Ibra Fall signé woon ngir tërbiya ko Sëñ Tuubaa ak pas-pasam moo ko may mu tërbiya ñetti at yu kenn koo xam ne dañ lay wax ne la am na bu mu jàkkaarloog Serigne Touba ñuy xas-xaslante ak waxtaan ci digganteeg njëbbuloom ak bañ a jëbbuloom am ci kenn da ngay dégg ñu diw bañ jëbbulu sëñ bi lii la ko sëñ bi wax ba mu ñëwee sëñ bi lii la meloon waaye seetal ki ñëw ci nit nga bi ak Cheikh mu ne ko ndongo mu ne ko ci mu ne ko na ñëw Cheikh premier jour boobu mu gis Serigne Touba la tàmbali tàggoog sa ngir leer gi nekk ci moom nuuraan gi xam nekk ci jalaal bu mu yu mas tàmm lim di ko faral gis nga xam ne ne ki ñu seet bokkul ak ñam daan gis waaye sëñ Tuubaa xamal na boppam ni kii mooy ñam daan gis ndax sëñ Tuubaa moom du nit ba dara ñëw fi moom mu doo koo xam am la ma nii maa kaana xable xalq la wax ba dara amagul la ma xamal lépp kooku kon dara du ñëw ci wetam rek naan ko may diw may may nit na leen ko mu ne ko ndaw la lu ko ko kooku àjjana ëllëg kooku na fal bu doon fal Cheikh Ibra Fall bu doon bu doon pouvoir la bëgg bi ñuy yëg Sëñ Tuubaa noonu lay tànk yu dul fees la te ku jàng histoire am xam na ne kon bu doon bëgg suuf wala xëccoo ko wala boole buur ak dammee na ko ñëw kon Cheikh Ibra Fall ka lay dox waaye déedéet egg ci yàlla isma yi egg ci yàlla boobu baat mën naa tisaaroo mën naa bari kenn ku nekk mën naa te léegi yegg ci yàlla alxuraan waxul ne yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa sadiqin maa sadiqin boobu dañu daan ne kun maa allahi fa in lam takun maa allahi maaman maa allah yuusiluka ila allah in kunta maa nekkal ak yàlla boo mënta nekk ak yàlla nga nekk ku nekk ak yàlla danaa la yàggale ci yàlla nem ne ma moom moo tax Cheikh Ibrahima Fall ñëw na sëñ Tuubaa damaa bëgg a egg ci yàlla sëñ Cheikh Ibrahima Fall jëfam jëpp jëpp jëpp alquran te taxu laa waxoon maa asadiqin damaa jël ndigal rek danga doon wax dama jël ndigal suñu daa bi moo joxe gi yéen sëñ Cheikh Fall yi fi teew ak soxna yi amul yëpp balaa gànnaaw jàll ñu neexal gànnaaw bi sëñ bi ñu jëmmi seen loolu la sëñ bi joxe ndigal nan ko neexal ba xolam sedd buy mu waxtaan ak seen xol faal ba suñu xol sedd buy nan ko laam bu ñëpp allo allo allo. ñoo ko ne léegi bu mu ñëw. yaa ngi dégg. nan seeral xorom ñun ñëpp di jëm Cheikh Ibra Fall. Gana nag da nga doon tàmbali. wala wax de. na ñëw ku dégg rek laa mën na ñëw

yooyu rek mooy mooy yoon yu mën a jaaral noonu wala bi ki la waxal ki ki nga ñëw ne ko dama bëgg yegg ci yàlla mu wax la condition yi yin mën a jaar ba yegg ci yàlla bu doon ne loolu rek ngay sa yitte wala loolu rek ci ngeen di jaar yéen ñaar ndax doon na kon baax na dem di jullee ko wala desal ma waaye dana ko yii li ci nekk def naa ko waaye taxu moo ne yegg ci yàlla man nag damaa topp tànk bu yàlla ba mu sosu sa kër boo ma boo ma wanee bu fekkee ne li may wut mënuñu ko am doo doo doo li may seet boo ma tegtalee fi yàlla jaar ba génn rek ma rek kon yàlla rek lay wut li ñuy wax li ñuy wax li ñuy wax li ñuy wax euh, li ñuy wax ñetamal ndax sëriñ bi bari na lu daan jëf loo xam ne léegi-léegi mu jëf ko bu fekkee ne coobarewu rek ci boppam wala lu nit maslaa nangam la du ko def waaye léegi-léegi mu sës foo xam ne nag faaw mu jëf ba ba loolu amee mu ne ko man yegg ci yàlla rek mooy sama mu xam pas-pasam xam ne kii mu toll ak li muy wut ndax yor attan na ko ndax मान गया رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بوكي جلدي بوكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي لن نيو نيو جلد أم بوكم جلدم di leen nuyu nuyu taalibe mbokkum taalibe bi di ñaanal Cheikh Sidi El Muxtaar sunu borom yàggal ko fi dolli ko kàttan ba yéeneem ci liggéeyal Cheikhul yi mu defe ko ni mu ko bëggee di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp ak jullit yëpp ak taalibe yi di siyaare bu baax Serigne Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam dëgëral taxawaayam mottali ay naalam ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall di siyaare kuréel gi nga xam ne ñoo takku ngir saytu ak gëstu ak toppatoo jaar-jaari a Cheikh Ibrahima Fall muy Jazbul Murid noo ngi leen di ziyaare bu baax di teg nuyoo bi ak ziyaar bi ci bokk yi ko jiite ak ñi ci bokk ñëpp noo ngi leen di ziyaare ci gën gaa matinu ziyaar gën gaa rafetinu ziyaar di ziyaare bu baax njabootu Cheikhul Khadim gi fi nekk bu ñu waxee sëriñ Mahmoudan moom Cheikh Mahmoudul Moutada moom Cheikhul Khadim dana mën a matalaale ci kilifa yi fi nekk yépp kon noo ngi koy ziare bu baax di jaarale ci moom ziare kilifa yu baax yi fi nekk di am mbégte bu baax ak cawarte ci liggéey bu am solo bi ndax jamono toll na fi jamono it laaj na ko moo di gëstuwaat dundin ak jaar-jaaru ku tedd bu Cheikhul Khadim dafay mel ni en général bu ñu touché kenn ci yoon wi day mel ni day metti benn parti bi nga xam ne ñoom rek la touché fekk na ñi ngi soboote garab gi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa jëmbat bu ñu waxee dara ci Cheikh Ibrahima Fall wala Cheikh Ibrahima Fati wala sëñ Mandoumbe wala kenn dafay tegtale rek ne defariinu sëriñ bi dañuy jubloo xeet wala ñu di ci am ay gis-gis moo tax luñ ci tudd rek ku bokk ci yoon wi loolu daf laa war a metti bu ko defee xam ngeen ne ñu baax ñooñu fi nekkoon ñëpp sëriñ bi ci leer lu leer nañ ñi ci la samp mbiram dafa wax ne sama yoon wi génnul alxuraan ak sunna ak li borom xam-xam yi dajale بنيت طاعتي باتباعي بالذكر والسنة والإجماع سليم جبان ميرم ميب درر جنك القرآن ميرم ميب درر جنك حديث يالنبي صلى الله عليه وسلم درر جنك لنجا خمنا برام خم خم يب ما سلنا نبا تنكو جا سخل قو لا لا رك ما يدخل نشاق الخديم نور نور رير ولا لير لاتي yàllaa ko ko fegal alaya man allahu dul jalal bi azmatihi min dararil idlal ginnaaw moom du du réerul te du réeral kenn jàng alxuraan topp sunna su yonent bi farlu ci yéwéndal mbiri jaam ñi walis may xool seeni ban ban daan na nag maa ngi woon képp ko xam ne ndax yàllaa ko wooteloo xam nga sëriñ bi daan wax ne woote yomb na waaye bi ismillahi ja moo jafe maanaam am ndigalul yàlla ci woote sëriñ bi nag moo wax ne yàlla ma digal ne naa wax nit ñi ne leen maay wéeruwaay bi maay làquwaay bi ku bëgg jàmmi adduna xalaaxira na ñëw fi man léegi nag daloo sa bopp loolu suñ tubaab déclaration bi la xam nga ne yonent bi salaaw salaam bari na tey ñu xam yonent bi ñan ñoo leen xamal yonent bi mooy ñi bind ginnaaw yonent bi te dëkk ak moom moo xam muy Kaabu moo xam muy Xazaan moo xam muy Busayr ñooñu tey siira bi yonent bi salaaw salaam nabi yu ndum yi la mënuloo teg sa loxo ci benn téere bu yonent bi bind xadis yi mu wax ñeneen ñoo ko bind kon moom jàngul bay bind waaye nag ku jàng ku nekk ci biir li muy wax ci ngay nekk ci biirum njàngamit ci ngay roote ndax yàllaa ko xamal lépp kon ñi nekkoon ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo feeñal li yonent bi ëmbi ak li yonent bi bëggoon chambre bambu joué na ci loo xam ne lim jàngale ci yonent bi sallallahu alayhi xam le ne kii mooy kenn moom la yàlla def mu mel nii seet qualité qualité mala mex yi gën a mag yëpp mu fotoon ñu yonent bi identifié ñu ko ba tey bu boo dee jàng nit ñi Serigne Touba ci yonent bi bu daaneelee kàddoom day mel ni yaa ngi jàkkaarloo moom bu la waxee ci ay wax mu ay jikkoom da ngay xam ne doy na rek ci mushkin li shaakin bashirun li baakin yonent lu kenn ku jàmbat loo mu dégg ko ku jooy ba ñëw fu moom mu bég loolu loolu benn jikko ma ko gën jenn jikko ju ko gën a gën a mat wala jenn jikko ju ko gën a rafet amul Serigne Touba wax ne sufiye al mawla bihi kama amal yonent bi biiram dafa rafet bitteem rafet maanaam perkal la amul melaw biir mu mel nii wee di mel ne ni biiram mel nii la bitteem mel jaamoo na yàlla it na ko yàlla bëggee sëñ Tuubaa ba mu ñëwee cam lam ca teg dane ginnaaw dañ la suppiye waahiru la mu wam badan daal di wax ne nag zinatu zahiri wa batini maa kaw ni xaadiman mu mutabaa lii ngeen di gis ci man mu taaru ci biir ak ci biti lépp li ma ko may mooy nekk gi ma nekk xaadim rasul yonent bi mu doon joxañ di

téere yi nga gis mu jalladaat yi yëpp ñu di ko fekkee ka tafsir tafasir yi génnul biir nabiyun rasulun xayru abdin wa sayidin xalilun habibun mislahu laysa yu'lam mën nañ nag di ko di ko taxliixaataka ajaka guddalaka saa waaye génn lool Cheikh Baye Fat bi bu ñëwee yi ginnaaw suñ tubaab dañuy joxe naan kee mooy kii la zaaka nangam zaaka nangam zaaka nangam léegi suñ tubaab dañuy jàngal yonent bi ñëw ba noppi nag moom ëmb yi ñu doon te kenn doo xam ku mu doon wala day wëlbatiku naan maay kii wala nii laa mel moom li muy wax ne mooy daraja ci kaw ni abdallahi man daal maay koog jaamu laa di liggéey waaye dañ ci ci xam ne dañ a xam ne ñëpp yëg na ko wax ni ma meloon man bi mel ni njàq su nekk ci géej ñagu sëñ Adama Gueye di burum lu di burum lu ba fekk ma fa tàng ca naan ba muy siggi seen sëñ ma baabu daal ne ma baabu kaay njaq a ngi si su sedd te neex a naan muy burum lu fa mu jaar di jaar baar si fa tàng naan ba muy siggi seen ne Ibrahima kaay as njaq a ngi nii su sedd su neex Cheikh Ibra Fall ba mu ñëwee lam leen dëkk wax wutal leen ma sémmiñ ma àlli ma ma àll bi ngir njaq su sedd su mel nii fu mu nekk des ko war àlli ba noppi loolu mooy woote bi àll ko dagg garab yi lépp dana ba ba ko daggee ba ba njaq li ne dafa waay tollu seen ko mu ne njaq lii nag yëllul ci kenn di ko naan yow kenn danga naan ñëw leen as njaq ngi sos ku ko naan mucc dara déclare nga war a woote lii ñu sëñ Tuubaa loolu mu jàngale nag li mu jàngale mooy war gi mu woon sëñ léegi yàlla moo wax ne laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli mun tàggale benn yonente bi lu tax sëñ Tuubaa egg ci ne taratu ma usiwal muxtaari sayyidina léegi moom ku dul yonente bi duutu mën a tan sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall nag ñëw léegi am ci nag pointif boo xam ne xoolal bayitu sëñ Moussa Faye daal dëpp waxi sëñ Tuubaa ji yaqulu lisaanul xaali liikun xadiima man xanaata anil akdaari billahi saaraan boo ko jëlee mas nay xibaar ak njëb buloo wax ne yàlla mi moom moo ko bamba moo la moom raasi ko jox ko say sëñ Tuubaa nee na yàllaa ne ma dooleel liggéeykatu kii Cheikh Ibrahima Fall nee na yàllaa ne ma kii lu bokk ci biiram rek umpule moo cay dal nit waaye lu mat la lu tege la ci yoon bi yàlla bëgg tey jii nag ñu jël ci kon kenn ca ñu baaxam ñooñee muy maam Cheikh Ibrahima Fall di ko dakkantale baabul muridi doy na rek ci ñu war a mën a nangu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam Cheikhul Xadim digganteem ak yonent bi salaatu wasalaam dem na ci junni at ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk wala junni at ak ñetti téeméer mu mel ni lu tax ay xuddaan li ñu doon bari bari ñii dëkkoon ak yonent bi sallallahu la wa sallam ñii ñëw ginnaaw yonent bi ci at yu gën a jege taxuloon ñu tudde leen xaadimu rasul sëñ Tuubaa it ñëw rek programme boppam ne may xaadimu rasul ndax bu ko tuddee woon boppam day mel ni moom ñëpp ñoo ci yem waaye yàlla boroomam moo ko natt ci àndaar ji ñuy natte ki war a doon xaadimu rasul mu fess ko del mu ne ko yaay khadim rasul motax mu waxal bopam ne yalla ma tudde ci lu dog may khadim rasul ta diru jabono di am liggey bima ko liggey metti lay doon sammaytani qatan bi abdika al-khadim ya man yaqud li busharatin tub yàllaa ko seereel it ne ko yaay xaadimu rasul mu ne shahida lil baaqi bi anniya alxadim wa xidmati lil muntaqa bishun yabi waxal boppam it ne doon gi ma doon xaadimu rasul ak nii ma liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam foo leen fi dégg ko danoose ne dana ko defee ni ma ko defee dajji naa njottam sànni ci àll ba di xam ne ne menn man képp maa ko defee ni ko yàlla bëgg man zanna annahu yakunu abada yurdayhi billadi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anniya alxadim bi ma wana an mislihi kula xadim baa kon la muy la muy tegtale mooy day wone ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi rek moo ko liggéeyal booba liggéey bu mat doon na ko adduna bi yëpp mu tàmbalee ci charqan wa magriba foo ne fi xaadim rasul kenn du dab du mu dab kenn bàyyi xalaat kenn du Serigne Touba loolu ko jëf ju rëy ko may ak liggéey boo xam daf ko liggéeyal yàlla bu ñu ñëwee it ci liggéey bi ñu koy liggéeyal moom Serigne Touba soosut waaye dafa sof lu tax dafa wax ne bi ma ñëwee dama fekk yoonu gaay yàlla yi farga yi nit ñi jëmatuñ ci yàlla nan ca war a jëmi di foye alquran di sàggane lislaam ku nekk boroom xam-xam ku nekk bari na looy nangoo jëfandikoo di ko lekk ci ay gar wala ci ay moyaal walla ci di atteel ay buur ci loo xam ne nekkul lu yàlla bëgg mu ñëw nag woo nit ñi jëmee leen ci lan ci at taqwa muy ragal yàlla boo xam ne gu mat sëkk la bi mu ñëwee it xam ngeen ne dañuy wax ne mu tasawufu nii dañuy wax ne li tax yëf yi am tuuti benn saw saw bu mat di jàngat ñi fi jiitoon yëpp ma ak turuxu suufiye yëpp kenn ku nekk saw yoon dañ ko dañ ko tudde sa bopp wala sa ñoom tuddelu ko si Amadou Tidiane Chérif التجانية شيخ عبد القادر الجيلاني الخادرية أو الشاذلي أو رفاعي أو بكتاشي مولم طرق صوفية يب dañu jël seen yoon yi tudde ko seen bokk al iradu sadiqa nag képp ku nam yàlla bëgg a dox jaar ci yoonu yàlla woowu yoon la Serigne Touba woote lu mu ñëwee it yim tabax mbiram lenn lu ci mat a jëf lu nekk اندار الشريعه اك حقيقه سن توبا دين كو بام جوم تي دين مو خامني كين موسوكو دوي نونو كودول موم لا مان ني ني دامالون تيل نون نانيو كو ني تودي وون اي شرفا ني نك بروبي خام خام دامالون تيل شيخو خديم دم نان بام نون لولو نون لا نيم بودي ولا جامو يالا ولا رغال يالا كين ني تي ني سيرن توبا سن بوب نيو مو جي سيرلو فرد وليس له نظير في السقاء وكس التقى وعذاب الرحمن كل يوم جار تلو خمنا في جوي وأغلي يلا بنا من هو تيوان الويت تلم لك هو تي دانا سما يتنا مو يجامو يلا إلى مو لاجي لاجي لاجي لاجي لاجي لسان المحارم ولم يكن خديما من liggéeykatu kii Cheikh Ibra Fall ne man yàllaa na moom yàllaa ne ma yow suñ tubaab la moom bu ñu ñëwee xam ngeen ne bu fekkee ne ak li li ñuy war a pousser toujours ak di ca xalaat moo di sëñ tubaab bi mu rasul la ko xudu te maa nawee waa nga tuxu léegi nan ngaa génn diggante dafa bàyyi dafay ndigal bàyyi tere mooy mooy mooy mooy mooy léegi nag joxe at yi nag doy ak jaamu yàlla mooy lan moo di jaamu yàlla mooy xol bu nangu

wala iñaa lay bëgg a jàpp nit ñi ba nu mu a dégg alquran boo seetee kete bu la def de tawilé ci rek mën nañu def ay séminaire yu dul jeex loo andi teg keneen andi teg te ci biir alquran dañu nekk duñ ci génn yàlla waxal génn ma aatikum rasula bu xusu bàyyi daal tëgguwul ci mooy jëfee ndigal bàyyi tere loolu mooy seen faax jëfee ndigal bàyyi tere yàlla ko jëkk ni lu yonent bi indi def leen lu mu tere bàyyi leen sëñ Tuubaa luy digle du digle lu mu digle yàlla ko digle lu mu tere rek yàlla ko tere kon loolu nga jëkk jàpp ci point Cheikh Ibrahima Fall bu muy ñëw ci Serigne Touba yi bari na ay kàngam bari na borom yi xam-xam waxtaan na ci kilifa barki dem mu ne xam-xam sëñ mu dem xam-xam sëñ Mouhamadou Lamine Diop ak dégeen yi xam-xam yii la Cheikh Ibrahima Fall amee woon xam xam-xamam dafa jël xam-xam bi dëxañ ko te bari na ci biir mag ñoo xam ne xam-xam biñ am biñ ñëwee ci Serigne Touba nangootuñoo jëfee ci xam-xam am na mag ñoo xam ne dañoo gas seeni téere منخوت نصول وحنا بنتي أنا بسنت بعد الجامعة أو أرف كل خم خم بابو لم يخم خم ما يخم خم ما يوسيلة باي بغاية نتي بقى جم نار أنا أنت بقول يو بيا جم نار نواج نار نيجي أنت بقول أنا نوع خم خم ما لي تيتة سير بعدين فارو خم خم ما يبرزتير بيكون نين نسنت بعد الجامعة بيسكو لو نور خم خم بقول بين نسنت بعد بب بنيه بيسكو نب بنيه بيكو كم نيه نمرة تروي كان ما يشوفه هذي kon léegi ki yàlla indil te sëñ tubaab mo ne balal li ahlul kashf wa shahada manam ñaarul texe te yàlla dafa lépp ay couvert da xamne lépp ubbiku na xam nañ ci ma doom leer nak kan la leeral baala li kulli man wilaya gis na sëñ tubaab bu ko contexte do doo texe mo xamoo dara kuy tëdd dina la dong mo waxal loolu ba baala li kulli man wilaya ku amul wilaya ku nek xam na ki ma doon baala li kulli man maqul ku amul xel ku nek xam na ki ma doon baax na li ay lil kës fu shaara ku ñëw na ubbil kiiraay yi ba amatoo progrès bu la baare xam nga ki ma doon ku texe xam nga ki ma doon ku texe wul doo wàllu yu amoo texe amoo xel boo war a génn si yow sëñ Tuubaa boo war a ginnaaw di ko métti sëñ Tuubaa doyul lu mu dox dara doyul ku texewul dara te yooyu moom moo ko waxal boppam kon ki am yii nag mooy xam kan mooy sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall di wër Sëriñ Tuubaa ci àdduna bi dàq naa fi la ñëpp la daan naa fi la kaamil te gisagul Cheikhul Xadim kër Moustapha Touré ñetti at tërbiye na ko yoo xam ne kaamil alxuraan lay naafila day taxaw benn tànk bi jàng xaaj bu njëkk bi wàcce benn tànk bi taxawal bi ci des jàng xaaj bu mujj bi fajar jot suñu borom daaral ko jaamu yàlla yu wàllu yëpp mu sut leen ne leen garab bu la sut du la mën a may kii ñi bokkuñu ki ma set moo ne bu fekkoon ne dañ ko yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wattaqu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabili léegi am na ci ay mufassiru bi wax ne al ahmalu salihat mooy al wasila léegi al ahmalu salihat nan la nit di mën a jëfe ji jot da ngay nekk yi di wala ngay kar nit ñi da ngay jëf ci nit toog yàlla yàlla nangul la sa jëf nangu ko ba tey dañuy def benn sew si foofu tey boo yegg ci abu talib abu talib al maghribi nee na ki bëgg a yëgg ci ñoom talu garab gi te amul sëriñ noonu ñu ko bëgg a nan la mën a mel ndax loolu dana yomb mooy bëgg a toog ci taatu garab gi rek jékki-jékki yegg ca njobaxtal la te am yëg te ne doo laal dàtt bi ndax da nga yéeg ci garab bi mooy ki bëgg a yegg te doomu sëriñ fa daayee yoon la Cheikh Ibrahima Fall egg ba rëpp ne di wër sëriñ Tuba ngir dimbaleen nii bi mu ñëwee ci moom it li ngay jëkk a gis fekk na fi mbooloo bu doon xam-xam sëñ Mbàkke bu so doy na Cheikh Ibrahima Fati bu doon Daaru Muxti doy na sëñ Daaru Asan Njaay doy na sëñ Daam Abdourahmane Lo doy ci encadrement boo xam ne bu dee xam-xam kenn mënu leen ca jot dañu fanaani loosi la jàng alxuraan duñ jëw duñ wor duñ werante di yàlla yi neen